élection présidentielle tàmbali si at mi ñu ko war a des ñu dàq euh, te loolu bañ koy def 63 desoon ay weer mais fii li tax situation bi nekk li tubaab wax situation inédite mooy dañu tàmbali. processus électoral boo xam ay weer a ngi nii ñu ay euh, ay waxtu président de la république ñi nga xam ne mooy garant des institutions wax ak réew mi ne euh, arrêté nañ parce que décret la jël bu dàq décret bii convoqué woon ne dañuy mu jël beneen décret ne woote ba ma woote woon dindi na te bu wootewul woote du am élection du ma wax ne loolu c'est la première fois mu am président Macky Sall ku ko xam mu waroon a postuler pour nekk candidat yoon mayoon ko mois de juillet moo ko àddina bi yëpp ne troisième candidature du ko def nekkul si bopp addina bi yëpp d'accord suñu coalition daje di waxtaan ba tànn benn candidat boo xamante ne li ëpp si coalition bi wala ma ne bi yëpp d'accord si ne Amadou Ba mooy suñu candidat ah, bu ñu fàtte ne fii si Sangalkam département Tëngéej Sénégal yëpp wër ngeen bi di ko wutal ay parrainage ba ñu ne yegg na si 4 millions parrainage yoo xam ne pare nañu pour parrainer Amadou Ba ñu defal ko congrès boo xamante ne bii euh, parti yi nga xam ne yëpp ak mouvement ñu set la grande coalition présidentielle ku nekk def congrès investir Amadou Ba ñu ñëw dem conseil constitutionnel mu validé candidature Amadou Ba ak fukk ak juróom-ñeent ñu nekk ñaar fukki candidat yoo xam ne conseil constitutionnel bi nga xam ne moom rek moo am sañ-sañ wax ne di way candidat mu ne ñii ñooy candidat mais ñu dem aussi si wàllu préparation wu euh, campagne bi àjjuma candidat yi genn wàll gi mu di fukki candidat yi dem RTS enregistré seeni déclaration pour campagne y compris Amadou Ba ñu xëy samedi président Macky Sall ne euh, lii ñu waroon def mënatuma ko wéyal mu nekk njàqare ak mbetteel suñu bari suñu waaye nag comme mbetteel la te moom moo am sañ-sañam président Macky Sall mii de sama décret bi ma defoon euh, toxal naa décret bi li mu ñu wax te ñu mën ko dégg mooy Sénégal dafa am lu mu bindoo pour que régime politique bu Sénégal mën a dox wala euh, lépp luy élection dafa am ñetti pouvoir boo xam ne bii euh, tribunal maanaam ñiy àtt bii ñi nga xam ne ñooy wate ay loi maanaam ñiy def ay loi mu di assemblée nationale député yi ñoom ñoo ko moom beneen bi kiy wéyal tey euh, taxawal politique bu Sénégal mooy président de mooy exécutif donc le pouvoir exécutif législatif ak judiciaire président nee na yi ñoom ñoo daje gannaaw ko benn kuréel député demandé ñu taxawal benn euh, commission d'enquête parlementaire comme ni leen ko yoon ay député yu bari doo député yi nga xam ne ñoo bokk Benno Bokk Yaakaar ne d'accord nañ si député yooyu nag li ñu wax ne ñoo tax ñu si mooy dañu tuumaal suñu candidat

dañuy wuyu commission d'enquête parlementaire parce que yoon nii la wax ku nekk ak sa paj ak sa mu nekk xëccoo